ay bisimilaay jàmm bisimilaay jàmm Sénégal dëkkub jàmm dëkkub jàmm yàlla ñu yàlla may jàmm yàlla may jàmm président président Sall Macky yàlla na li yàlla defal jàmm yàlla defal jàmm sa ko correct koole àndal Macky Sall ku ñuy Var en andal Macky Sall Fu ñuy votel Macky Sall Var en andal Macky Sall Fu ñuy votel Macky Sall Var en andal Macky Sall ku ñuy votel Macky Sall ka lay tagg fa ka neex tàmbalee ndaxam dina juum foo rabee ci àll am ndawal doo morom ak mbuum sàll ngaari lam toora moom yaa lañ mën suñu Sénégal ca kanam jàmm rek nga ca woote eti déwante logique sa démocratie gën a yaatu tàllal nga lox opposant yi Sénégal naw nañ la waa Gambie gërëm nañ la danga xel ba bal takul sécurité nationale jéeri jeeg jaww ji kaaraange gën a yokku wàññi nga bee màkkay redin nga inondation yokku logement social yi fàttewoo askan gi subvention matériel agricole bi def nga ci lu bëri couverture maladie universelle bi gën a baax bi moom jàmm rek lañ ca am autosuffisance alimentaire suñu mbay jëm ca kanam nañuy mbay di dundee suñu Sénégal ca kanam ceebu waalu be ngi ne suñu Sénégal ca kanam andal Macky Sall ku ñuy votel Macky Sall Wara àndal Macky Sall ku ñuy votel Macky Sall wala àndal Macky Sall ku ñuy votel Macky Sall wala àndal Macky Sall fu ñuy votel Macky Sall yokk nga université yi taxawal daara moderne éducation national Sénégal amdam ndam développement rural yi électrique forage yi bor ci bourse familiale yi fàtte woo di doole yi wàññi nga location yi yokk nga salaire yi nga ñu impôt transport we gonna dox suñu train express but ak ak jàmboot autoroute Ila Touba corniche bi gën a yaatu tabax arène nationale xam mooy suñu culture sport bi di la gërëm création d'emploi def nga ci lu bëri bëri ville moderne jam ñaaje aéroport Blaise Diagne pont Sénégal Gambie fond d'appui yaa ngi nii fàtte woo diaspora bi li nga liggéey ci kër yi tarixa yëpp la sopp am nga yar am teggin chrétien musulman ñëpp nga boole yamale andal Macky Sall ku ñuy voter Macky Sall Kolen andal Macky Sall ku ñuy votel Macky Sall kolen andal Macky Sall ku ñuy votel Macky Sall kolen andal Macky Sall when ku ñuy votel Macky Sall yokku Dakar dem dick. Sénégal dem dick. xol up, gonna bet. Yoko, nga assainissement yi setal nga environnement bi defaraat nga suñu justice ba bañ rek la ca sooxe sa bilan ci cinq ans doy na bët sàllangaay wërsëg bi nga indaale gaz petrol, balla Sénégal jëm ca kanam su may lim fii ba suba dëgga dëgga duma fi jóge tuuti wax jëf lu bëri ana fay wax bay jëf Macky Sall gën a baax Macky Sall gën a gore Macky Sall clink Sala, mon you doit, mon you act, mon son excellence Président Maggie Sala, check out the canon, one love Senegal Atal Maggie Sala, can you foretell Maggie Sala Pour un andal Maggie Sala, can you foretell Maggie Sala Pour un andal Maggie Sala, can you foretell Maggie Sala Pour un andal Maggie Sala fu ñuy votel Macky Sall ko leen àndal Macky Sall fu ñuy votel Macky Sall ko leen àndal Macky Sall fu ñuy votel Macky àndal Macky Sall fu ñuy votel Macky Sall ko àndal Macky Sall fu ñuy votel Macky Sall asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi fu leen toll ci àdduna Khadim ngay moo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen sant di leen gërëm.

Macky day dem ci euh, ci dëkk àll yi ñoo xam ne courant lampe mosuñu ko woon a gis Macky Sall ñëw jox leen courant ñi nga xam ne ndox dañ doon gas ay teeni yi quatre duñ koon am Macky Sall jox leen ay forage tey jii nag gis nga won naa leen forage yi ci yee passé ak euh, yeneen activités yoo xam ne si gis ngeen ko ci ñaari vidéo yee tey nag dama bëgg ñëw ci électrification bi électrification mu koy wax xuy kamac gëj na Sénégal ba Macky Sall ñëwee ba tey defe naa ne kenn ku ne war nga mën a am looy wax ci Macky Sall ba mu des li nga xam ne si mooy euh, courant ak euh, xuyi kama ji nga xam ne si tàmmoon ngeen ko defe naa ne loolu ay opposant mën nañ ko attaquer lu ne ci lu ne ba mu des ci courant ak ci li nga xam ne si mooy euh, mooy mooy mooy mooy infrastructure yi mooy li nga xam mooy bilan daal bilan yi moom doon ko dégg dañ ko xas daañ ko wax lu nekk waaye bilan ba duñ ko laal de lan lañ soxlaa un gouvernant mooy mu taxawal askanam taxawal leen ci infrastructure taxawal leen ci li xam mooy courant mooy ndox mooy lépp loo xam mooy besoin yi nga xam ne si mun a ñàkk waaw ndax lekk lu mu cher cher gis ngeen won naa leen ci semaine ba passé wàññi njëkk yi nga xam ne wàññi nañ ko gis ngeen opposition bi taxawuñ wax ci loolu ñu ngi leen dugal ci ay Sonko aju Sarr ak ñàkk fayda yoo xam ne du dundal benn sénégalais mais Macky Sall la mu leen wàññil am ñoo xam ña nga naan ñaar fukki dërëm ak ñeent fukki dërëm yi ñu wàññi lan lay jariñ mais ñu koy wax dama bëgg ñu xam ne calculer ko ci sur 17 million de person ñaata la benn kilo ceeb bu ñu la ca wàññilee deux 200 francs deux 200 francs yooyu lu rëy la ca Sénégal waaw di wax tamit ñi ne ci ah, diaspora bi comme ni ma fi nekkee. baadoolo yi ñi nga xam ne si ay saytaane lañ au lieu ñuy wax dëgg gi nit ñi naan Sénégal la méttee te pourtant ñoom ñoo dàq jooy fii la ñuy toog ah, dem di wut pat sax bu ñu koy jënd dañuy jooy ndax lañ leen ca tagal kooku duñ leen ko wax te duñ leen wax lu ñuy fay courant duñ leen woyul wax lu ñuy fay ci euh, li nga xam ne mooy gaz bi ak dund gi ni mu chére ci àdduna bi yépp loolu nag bu ma sañoon kenn ku ne fa nga nekk nga koy wax sa mbokk yi nekk ci Sénégal leen du foofu dong fii la ëppee ndax lu ñu doon jënd benn euro ñun lay ñett wala ñeenti euro lañ koy jëndee son excellence nag ci àdduna bi yëpp laa la wax wax naa leen ko béyoon damay dolliwaat leen ko ci tegal mooy ki nga xam ne si moom moo wàññi ay njëg ci lekk muy ceeb diwlin gaz yooyu ngeen gën a soxla essence yokkaluñ leen ko ndax gis ngeen la mu fay jar ak lu muy jar ci Europe bi ak États-Unis ba ngeen koy jëndee donc bi ma remercier Euh, rappeur bi nga xam moom laa leen jëkk a tegal mooy benn boy benn boy di rappeur boo xam ne vraiment day def ay textes yu am solo ci euh, liggéeyu Macky Sall di jeune ok donc moom laa départ ak noonu di ko nuyu Moustapha maa ngi lay nuyu maay booy kon nel ci loolu dinaa leen proposer sax beneen euh, clip boo xam defoon na ko bii mooy bi mujj a def donc tey nag ñu war a ñëwaat ci Euh, li nga xam ne si moom laa leen war a bu njëkk woon léegi dama leen bëgg woon ngeen xool son excellence si dëkk àll yi ak lan la liggéey ci courant bi après may doogu ñëw nag waxtaan ak ñeneen ñoo xam ne si vraiment euh, euh, président liggéey na ci zone bañ nekk dans ce cas pire laa tànn tey ak moom Mamadou Ndoye Bane sama frère sama gaañ sama xarit yéen ñëpp ngeen xam ko di ko nuyu de passage tey nag ki nga xam ne mooy chargé de communication moom laa war a waxal mais bala ma koy wax ak moom nag dama bëgg ngeen xool document bii ma leen tegal ci li nga xam ne si mooy li Macky Sall def ci courant bi ci àll bi ay dëkk yoo xam ne si vraiment courant jafe woon na leen lii la leen Macky Sall defal xippal say bët nga xool ko après yu yow fii la dëkk gi nekk Khadim Gueye TV laa leen di wax de foofu lañ nekk boo ci bindu woon na ko bind na ci bindu nga abonné ci bi activer cloche bi vidéo bu ma def ngeen gis ko bu ngeen bëggee xam lan mooy dëgg bi man nee naa la ay teer ak ay stade yu bees ak yooyu dama ko romb parce que yooyu c'est récent man dama leen loqale la Macky Sall di liggéey ca village ya nga xam ne si sore nañu Ndakaaru sore nañ grande ville yi xool leen document bi après ma doog ñëw nag dem fële ci nga xam ne si mooy piir waxtaan ak lan la yi ak le maire de Pire ak liggéeyam hmm, lan la def ci zone boobu ak ñaata village ñoo war a am courant foofu ngir xam Macky Sall lan lay liggéey ak lan la Macky Sall jariñ ci réew mi xëppil sa bët nga xool vidéo bi après yu ñëwaat rapidement fii jafe-jafe yi ñu fiy dund bari na boo xoolee région bi ñu nekk région bu tàng la muy Tamba. dañuy soxla glace duñu ko am soxla ventilo doo mën a nelaw guddi bu xasee ba tàng guddi moom dootoo ko mën a nelaw raa dolli suñu machine wali yi nga xamante ni ñu ngi fi jigéen ñi dañuy debee loxo wala machine wali dañuy ut ay groupe di ko kii mën nga dem tey ñu ne la groupe bi lii essence jeex na te essence dafa cher wala gasoil jeex na wala machine groupe bi panne machine bi day toog des mois et des mois yoo xamante ni jigéen ñi loxo la ñuy dëbbee Pour Ndongo habitant à Fascoto dans la commune de Koussanar, une nouvelle vie commence. courant bi ñu indi placé lampe yi ci mbedd yi euh, loolu vraiment ñun gëneel lañ ciy gis dem na ba gars yi di wax ne sax instant yi li ñu utaleeg Dakar mooy géej ak marché parce que boo xoolee courant bi gars yi ñu nga haute tension la donc courant boo xamante ni bii la am na doole bu fi xasee ba nekk képp loo xamante ni bii soxla nga ko muy bo amé bo xassé bam am frigo da nga mëna garder da nga mëna garder sa euh, bu amee yàpp di nga ko garder du yak té même bo togué ñam bo xamante bi ëpp na sax du yàqu mën nga ko garder loolu yëpp mëna ci am donc euh, luy gaay di wax mën nañ ko compter li ñuy li nga xam moñu xajal ak Dakar moy géej ak marché. L'énergie constitue un facteur essentiel de production, incontournable dans tout processus de développement. C'est donc conscient de cet enjeu que le plan Sénégal émergent considère l'énergie comme une priorité, un fondement de l'émergence du Sénégal. Depuis des décennies, les gouvernements successifs ont peiné à régler la question de l'accès à l'électricité. Les ambitions stratégiques du PSE dans le secteur de l'énergie visent d'une part à fournir une électricité en quantité suffisante, fiable et à bas coût pour soutenir la compétitivité des entreprises et améliorer le pouvoir d'achat des ménages en divisant par deux leurs factures d'électricité. D'autre part, il s'agit d'abaisser les coûts et de positionner le Sénégal comme un hub sous-régional, mais aussi d'accélérer l'accès à l'électricité pour converger vers une couverture universelle. En matière d'accès à l'énergie, d'énormes écarts existent entre zones urbaines et zones rurales. C'est justement pour réduire cette fracture énergétique que d'importantes actions de modernisation et d'extension des réseaux se poursuivent pour rendre disponible et accessible l'énergie produite par les nouvelles unités et faciliter ainsi l'électrification rurale érigée en priorité par le président Macky Sall. Les autoroutes de l'électricité voient le jour à travers des projets majeurs de réseaux de transport dans les quatre coins du pays. Entre 2012 et 2015, on note un accroissement de 72% des sites électrifiés, soit 1648 localités rurales. 3000 villages seront électrifiés d'ici fin 2017 avec un financement déjà mobilisé de 159 milliards de francs CFA. L'objectif et d'atteindre 60% de taux d'accès en 2018 et l'accès universel en 2025. Avec la mise en œuvre de six concessions d'électrification rurale et la mise en place de projets dits d'électrification rurale d'initiative locale et du programme national d'urgence d'électrification rurale d'un coût de 150 milliards, dont 110 entièrement mobilisés par le gouvernement, le monde rural est en train de sortir de l'obscurité. Entre 2014 et 2016, 32 milliards ont été mobilisés par l'État pour réaliser des infrastructures structurantes, notamment de nouvelles dorsales. Objectif assurer un service continu d'électricité à toutes les communes du Sénégal. Toujours dans le souci de renforcer l'accès des populations rurales à l'énergie, le gouvernement a initié un programme national biogaz domestique pour équiper 10 000 ménages ruraux d'un biodigesteur, d'une énergie propre, accessible te durable boo amul biogaz da jënd mat jënd ay fourne gas jënd kiriñ waaye boo bio loolu yëpp doo ko jënd lii mooy njariñ yi li tam mu nekk njariñ sàmm yi nun bëgguñ kuy gor garab ñun suñu kalaat li état bi kalaat biogas programme baax na ci sàmm yi mel ñoo bokk Le plan de relance du secteur de l'électricité, initié par le gouvernement, s'est traduit par une ambitieuse politique de développement du mix énergétique et par le redressement de la Sénélec. En cinq années, nous sommes passés de 911 heures de coupure d'électricité à moins de 70 heures. Nous, dans zone toute la journée coupure journée soit day te mais fi man ba gisaguma coupure Cette prouesse de résorption du déficit en énergie est le résultat d'une nouvelle stratégie énergétique adossée aux ambitions du plan Sénégal émergent. Les sources de production sont maintenant diversifiées solaire, éolien, biomasse et hydroélectricité, ce qui permet de disposer d'une offre suffisante, durable et de maîtriser les coûts de production au profit des consommateurs et des entreprises. L'option du gouvernement est de passer d'un parc à plus de 90% thermique à un parc comprenant plus de 30% d'énergie renouvelable. En effet, en 2016, une puissance additionnelle de 270 MW a été enregistrée grâce à la mise en service des centrales dual fuel de Taibangay, du Cap des Biches, mais aussi les centrales solaires de Bokol et de Malikunda. Avec l'achèvement en cours de plusieurs projets, comme la centrale de Santiumere et la deuxième phase de la centrale de Malikunda, le Sénégal va bientôt disposer d'une puissance exploitable de 1237 MW contre seulement 587 en 2013. À moyen terme, elle sera porté à 1500 MW, notamment avec une centrale solaire de 100 MW en partenariat avec la Banque mondiale dans le cadre du projet Scaling Solar. L'autre élément, non moins important du plan de relance de l'électricité, est le redressement spectaculaire de la Sénélec. En effet, alors que la Société d'électricité avait reçu 120 milliards de subventions en 2011, elle vient, après deux années sans aucune subvention, de faire un résultat bénéficiaire de 30 milliards de francs CFA. Cette embellie a été rendue possible par de gros investissements sur le réseau d'exploitation, avec notamment la boucle 90 kV de Dakar et la ligne 225 kV Tambacounda, Kolda, Ziguinchor. Le redressement de la Sénélec s'accompagne d'une baisse de 10 à 15 des prix de l'électricité et d'une politique de maîtrise de la consommation des ménages avec le compteur de prépaiement Woyofa. buusu glace bii may jaay fukk ak juróom maa ngi ciy jox xale yi ndékki di leen ci jox ñu dem école jàngi di ci fay tamit sama courant bu ma daan fay fukki junni jamono yi may wax ak wàññeeku na lool sama facture bi ma mujjee fay xanaa bu ma ci fayee 32 000 Enfin, des perspectives d'exploitation et de production de l'énergie se dessinent. Le Sénégal peut afficher le sourire avec la découverte de pétrole au large des eaux territoriales sénégalaises, combinée à la découverte de gaz naturel. Ce qui permet au gouvernement d'envisager non seulement la conversion au gaz de l'ensemble des centrales, mais surtout d'en édifier une d'une puissance de 200 à 1000 MW. Assurément, tout cela augure d'une nouvelle ère dans le secteur de l'énergie. hey fii xaadim gay teebeel tudd nee lu ma lay wan day leer xam nga yu bari yéen yi xamu leen ko woon gis leen ko woon lii makkee koy liggéey ci àll voilà lii lañ soxla ci njiitum réew léegi nag loolu la ñuy continuer tey nag ma ñëw waxtaan nag ñu ñëw ba pire te di ñaan képp kuy maire bu nangoo liggéey waxuma ak maire yi ne ci télé euh, site yi di ratatat te un an ñi ngi leen fal defuñu dara yëngaluñ dara tay nak damay dem ba ci bir sama xarit mamadou ndoy band diko nuyu wat encore tay rek chargé de communication mom lay waxal waaw parce que euh tamit dafa na chargé de communication war na ci mëna am ay leral yu bare bare bare bare te bis dina ñew nak ak maire bi na tok mu wax ak mom yeneen affaire la ñuy waxtaan quoi voilà tey nag maa ngi gënale ci sama chaîne bi yi nga si euh, moor mooy moor mbay moor ngi lay nuyu di la ziare maa ngi lay nuyu Xaadim di la ziar bu baax. naka waa Pire. waaw ça va ñoo ngi ci ñu ngi ci jàmm sëñ Xaadim ñu ngi ci jàmm di sant yàlla bu baax a baax a baax. voilà mi ngi noonu tey nag gis nañ Sénégalais yi gis nañ fépp fu ñu nekk ci àdduna gis nañ li nga xam ne si tey euh, won naa leen yu bare bare ci am na yeneen argument ñu war a agsi ci président ak euh, action bi ñuy def Sénégal émergent ci liggéey bi nga xam ne son excellence mu ngi koy liggéey tey nag dama doon wone li nga xam mooy électrification bi rural en plus ñu xam ne Macky liggéeyul.

jërëjëf euh, Khadim. voilà euh, loolu moom dinaa ci kontaan lool. wax réalisation le président Macky Sall. fii ci Pire. ak ci soixante villages yi ko wër yi wër Pire. ci wàllu électrification rurale. mais loolu. président Macky Sall def ko. jaarale ko ci PUDC. jaarale ko aussi nag ci notre maire. Mamadou Ndoye Bane. parce que moom moo jóg. Mhm. ginnaaw ba mu defee compagne électorale. Mhm. ci élection locale yi. Mhm. dugg ci dëkk yi. ci la gisee ni. depuis mille neuf cent soixante. Sénégal amul indépendance. ndekete am na ay dëkkutur yoo xam ne mosuñu gis électrification. loolu nekkoon lu yéemee yéeme yéeme. te population yi nekk ci village yooyu. ak population yi nekk biir piir ñu mhm. ay citoyen mhm. nekk ay citoyen comme ñoom mhm. waa piir di taal courant seetaan télé di branché seeni portable moom Ndoye Bane wax ni moom lii lu muy jóg la su ginnaaw campagne électorale su gagné maire biir daa anda def avant mais électrification rurale bi ñaar dogalee mu gagné maire bi daf ci jublu immédiatement dem gis le président de la waxtaan ak moom doléance bi mu ko jëkk a wax mooy maa ngi ay village à Pire yoo xam ni depuis l'indépendance amuñu courant limal ko ci trente villages président ci séance séance ci la woo le directeur du PUDC ñu koy wax Cheikh Diop Cheikh Diop waaw jox ko Mm-hmm. Cheikh Diop. Mm-hmm. directeur PUDC. Mm-hmm. di ko Mamadou Ndoye Bane dina la woo na nga def li mu bëgg à Pire. moo déplacé wu pour la première parce que ñun nag waa Pire daan nañ dégg PUDC dégg lañ ci daan am. PUDC PUDC. waay waay waay. mais Cheikh Diop le directeur lui-même. moo déplacé ñëw ñu accueillir ko dëkk bu ñuy wax c'est un village centre. Mhm. voilà. Mhm. faut une grande manifestation. Mhm. Cheikh Diop directeur PDC avec le maire avec le staff du maire avec les populations. sur villages. Nous avons une manifestation pour vous. ndeysaan. Cheikh Diop engagement d'une indique électrification bi. ce village yi. ba mu Mm-hmm. actuellement nii soo demee ci village yooyu. Mm-hmm. samp nañu poto yi. Mm-hmm. tàllal lii nii fii lii. li ci des. liggéey bi taxaw. nawet bi moo taxaw moo taxaw. pour ñu dugal poto yu ndaw yi ci biir village yi maintenant pour tàll pour tàll lamp yi. parce que Mamadou Ndoye Bane daf doon wax ci biir campagne yi. man maay tàll lamp yi. bi yàlla dogalee mu gagné. processus boobu ñëw. Mm-hmm. Cheikh Diop ñëw xam nga Cheikh Diop Khadim. waay Sénégal amul benn dëkk laa la wax. Mm-hmm. bu ko soxlawul parce que moo yor électrification rurale bi. moo yor yoon yi. gis moo yor forage gis nañ lim def ci senegal ñun nag lim ci am moom. ah. gis nañ lim def ci Sénégal. Mm-hmm. ñun nag. voilà ñun nag li nu li nu am moom. ñun président de la république defal na ko ñun le président Macky mm-hmm. mooy c'est le directeur lui-même. moo déplacé wu fekk si Mamadou Ndoye Ba. ñëw taxaw si waay. engagement devant les populations. Mm-hmm. engagement yam jëloon yépp def na ko parce que takk nañu lamp yi. Mm-hmm. takk na nu poto yi. tàllal nañu fil yi ci village yooyu. yàlla xam na ne xaadim am na village waa yoo xam ni saa suñu xëyee dem nañ fa après. dañuy dem xool poto yi ndax poto yi poto yi ñu samp ndax dañ na ndax est-ce que poto yaa ngi ci dëkk bee parce que gëmewuñ ko. gëmewuñ ko waay. depuis 1960 depuis Senghor. waay ah. loolu. électrification rurale boobu xaadim. Mm-hmm. du loo xam ni dañ ko naan mi ngi bëgg a ñëw ak mm-hmm. dig na nu ko non le président Macky Sall il l'a fait à pire def na ko samayal mais mor gis nga ngay al gis nga doguma la mais gis nga documentaire bi ma teg avant may wax ak yow dot gis nañ gis nañ village yooyu yan problème lañ amoon gis nañ tey ji ah ñoom ñoo taxaw seedal ko seen bopp ñooñu moom def naa yàlla tax ñuy wax donc li nga wax daf ci dolleeku rek voilà voilà donc euh, donc euh, weddi gis bokku ci. non waaye waay. population yi ci boppam. Mhm. ñoo waxal seen bopp. ñoo gisal seen bopp. Mhm. Mhm. te daañ def daañ def. gis seen village yooyu. doguma la mais man moom danaa jël engagement bi dinaa ñëw foofu daañ dem ba ci village yi ah. nii ma ko wonee ci documentaire bi ñoom ñu seedeel seen bopp teg ko tàllamp yi sénégalais yi gis xam ne loolu la Macky Sall lu mu leen promettre rek def na ko vraiment. c'est très clair électrification rurale moom euh, sëñ Khadim. Mhm. ñun piir waxatuñ ko moom. ah kon naal naa électrification rurale. waaw. Euh, waxatuñ ko PUDC. Mhm. ak le maire ak le président de la république. Mhm. réglé nañu problème électrification rurale à Pire. ok léegi bala may teg gis nga la monsieur le maire rek moom danaa wax biir Pire am na def naa ay der yu bees yoo xam ñëw na fa te li ma bëggoon wax ci Mamadou Ndoye Bane loo xam ne def naa Sénégal yëpp gis nañ ko avant. Ndoye Bane daf doon yëngatu ci piir balaa muy nekk meer ba waaw man nii sama xarit la sama waay la yu ci bare yoo xam ne am dama ko doon di ko xam ko doon indi Pire avant muy nekk sax maire dafa naa ne ki lay defal balaa mu lay gérer dafa naa bis bu la gérer moom dafa naa yéene jënd ëpp waa ñu loo xam ne sénégalais xamuñu ko Mamadou Ndoye Bane liggéey na ko indi na ko foofu ci Pire kooku waa xaadim xam nga li nga wax ni daan def piir avant muy nekk maire. loolu la ko waa Pire njukkale bi mu leen laajee seen baat. parce que daf daan def avant. ci wàllu santé. wàllu éducation. wàllu social. loolu la waa Pire gis avant muy nekk maire. bi mu bëggee nekk maire waa Pire ni ko xam nga lan la. Mhm. ñun ay gor lañu. Mhm. njukkal lii nga ñu laaj. Mhm. pas de ñu laaj dans la koy jox parce que am nañu confiance ci yow. Mm-hmm. soo demee ci dëkk yu bari mën naa la citer ay dëkk. Mm-hmm. Mbaraglu. Mm-hmm. c'est un grand village à partir d'un petit moo ci village yu Pire yi. ambulance fa te c'est une case de santé ambulance bu bees tax la wax. équipé à valeur de 52 millions. pour case de santé bu Mbaraglu. te booba le maire. ce que def. dans terre? la nekk ca case de santé soo demaan mhm. jigéen ñi mhm. suñ daan mucc xaadim mhm. ci ay basan la leen daan lalal lal ya fa nekk yëpp ci case de santé njëgët c'est un deuxième gros village de Pire lal ya fa nekk moom Mamadou Ndoye Bane moo ko fa def booba nekkagul maire maire Pire soo demee troisième gros village de Pire ñu koy wax ka ambulance bu bees tàq la fa def. de santé ba fa nekk. Mhm. avant muy nekk maire. Mhm. Ralia. Mhm. équipement total bi yëpp Mamadou Ndoye Bane moo ko def avant muy nekk maire. pire nag biir pire moom dama ko jëlale. ndax pire. su fekkee da nga daan am bëñ buy metti da nga daan dem Thiès ba Dakar. léegi piir poste de santé Pire bi am na appareil dentaire. waaye kooku kay man yëgoon naa ko. te wax na ma ko avant. mu ko eh te boobu du euh, naa ko seede de. Euh, fauteuil dentaire waaw waaw. Mhm. léegi ku sa bëñ nekk à Pire doo génn seen doo dem benn. Mhm. Mhm. am na leneen am na leneen lu ma seede tamit. gis nga bi ndox mi sonalee Pire yoon yi gis naa tamit Mamadou Ndoye Bane. andi na ay oto yu manque ndox moomu ba nit ñi mën a circuler tranquillement te boobu nekkagul maire waaw non xaadim soofu laa jëm si woon aussi mhm. gis nga biir tur soo fa daan dugg su nawet ñëwaan mhm. tali boobu daan na daan nañ toog deux mois oh. kenn dootul jaar kenn dootul duggate foofu piir mhm. ci biir euh, ci ci biir tali bi nga xam ne mooy route nationale mais dafay mobiliser laa la wax ay moyens ak ay relation indi camion yi. Mm-hmm. ñu évacuer ndox mi nit ñi mën a jàll. te booba nekkagul maire moo tax bi mu nekkee maire <laughs> évacuation d'eau dañ koo régler à la minute jour par jour jour bu mu tawee ci suba guñ dindi ndox jour bu mu tawee ci suba guñ dindi. wolof nee na ku la ku la ku la yee jox la ndekki bu la da nga añ defe naa waroo ci am. waaw xanaa ah. lo lo loolu la waa Pire xam nga jox ko meer bi. <laughs> <laughs> man kay ba muy campagne. gis nga moom dama nekkoon sawaay soxlawul sax. yow ngay sonn ci campagne bi. waa Pire vraiment bu dee ay. góor li nga leen defal. ah sax ngay campagne quoi. ku nekkul maire defal la lii. non hésité ah, vraiment. xaaral Pire hésité wul bi ñu demee ak élection maire. Mhm. waa Pire hésité sax pour fal ko. Mhm. bi ñu ko falee nag <laughs> gis nañu. parce que biñ ko falé ci lan xam nak PUDC ñun lan moy des ci lan ko xamé biñ ko falé mhm. mhm. gis nga village yoy ma wax xadi waaw so dindé électrification rurale bi mhm. il y a 32 villages yo xamni dañ daan tok 2 à 3 mois daaw nu am ndox mu naan parce que forage ndindi bi nek ci awal ci lan dépendron ba paré forage bi da daan panne léegi nag Cheikh Diop bi mu ñëwee. Mhm. bi mu ñëw non léegi lé forage ñu koy bënd xaalis. chinois yi. Ah. ñuy dëkk bi ñuy wax bi ma la suma eh, village bu nuy wax Leyeen. waaw. chinois yi ñoo nga foofu di bënn forage bi actuellement nii bi ñuy def ay interview bi nii. ndeysaan ah xoolal li lu dàq loolu am na. nga xam ni. waaw déedéet yow soo falee maire. Mhm. mu indi courant. Mhm. indi ndox. indi tali. Ah. waaw Kidiane màcc na. mbalit Kidiane màcc na mbalit mi tamit gis naa parce que man damay toog fi di xool lu bari de Mor. gis naa même mbalit mi tamit. Ah. jël ay oto yoo xam dañuy ñëw di dindi mbalit mu salte mi wër foofu yëpp pir ñu koy évacuer di ko dindi loolu tamit gis naa ko. loolu xaalis chaque jour la. <laughs> noonu. UCG. Mhm. ñu ngi fi chaque jour laa la wax chaque jour. di bale dëkk bi. Mhm. di ko def ci camion yi. Mhm. d'ailleurs même. am na benn projet boo xam ne bu bees tàq la. Mhm. nga xam ne c'est un projet de tri des ordures. Mhm. tabax nan ko ba pare. ba mhm. fal nañu Mamadou Ndoye Bane le maire fal na le point focal. fi mu ne nii euh, organiser mouvement de famille la pour ñu collecter. mbalit mi di ko yóbbu ci centre de tri boobu. am na pire léegi. xoolal hein? donc waaw non euh, non kii euh, damay wax ni Xaadim ci njàppal nag ci jàppale nag ak le président Macky Sall. ah parce que lii lépp nag. ah déet mënu ko jëlee su ko mënee. ah waaw. non su ko mënee. su ko mënee le président de la république tax. ah oui. kon président de la république moom pire doy na ko exemple. Mhm. pour xamal sénégalais yi ni leen nekkul Dakar ak les grandes villes rek mi ngi ci mi ngi ci baykat yi. Mhm. mi ngi ci village yi. pire mhm. rek doy na exemple. xaadim li ma la bëgg doon dolli mooy. Mhm. Pire xam nga ni localité religieuse la. waaw. président Macky Sall gis nga la mu def Touba. waay. gis nga la mu def Tivaouane. waay. la mu def Touba ak Tivaouane ak gis nañ ko. moom la bëgg a def Pire. kër kilifa diine yëpp. ba ci église bi. jàng beeg yëpp defal mhm. waaw kilifa kër kilifa diine yëpp la koy def. Mhm. fi mu makat bi génn mi ngi ci mi ngi avec le maire makat bi ñun maire bi na nañu ko. ndeysaan nga xam ni. le directeur le directeur général de l'urbanisme envoyé na fa une équipe technique. ba maquette bi génn dañuy xaar dàmmu Pire bi paase jàmm. techniciens yi ñëw ñu xool na leen ko bëgg ñun waa Pire. ndeysaan ah, ah, xoolal loolu xaar. kooku de mooy Macky. waaw de ko mooy Macky de. ko kooku nag. waaw waaw kookooy Macky nag. kenn ñemewul ne liggéeyul. biir moom. non loolu kenn du ko wax moom. liggéeyul moom. bilan moom kenn du ko laal moom. gis nga so ci wàllu njàng mi wàllu njàng mi. waaw. le maire Mamadou Ndoye Bane xam nga lu mu def Xaadim ci budget bi. waaw. arbitrage bi mu ci def mooy. waaw man njàng daf ma soxal parce que dafa soxal la président de la république. Mhm. budget bi set million la doon am. Mhm. avant mu fiy ñëw. Mhm. neuf millions la ko def ren. loolu. pour rek njàng mi kese waaw loolu la Mamadou Ndoye Bane def. ne ko pour njàng mi kese. pour njàng mi kese waxuma santé de pour njàng mi laa wax. waaw tey yokk na deux millions ci budget bi ndeysaan jox leen ko. Mhm. Mhm. kon ñun. Mhm. suñ dee góor dañoo war na ànd ak Mamadou Ndoye Bane. waay. ànd ak le président de la république Macky Sall. parce que li Mamadou Ndoye Bane man lépp. président Macky Sall a tax. mi ngi noonu. waay. mais xa mais xaadim mais xaadim. Mm-hmm. Mm-hmm. tali bu bees tàq ñu ngi ko un kilomètre quatre francs. waaw. ñu ngi koy defar actuellement nii à Birs bi may wax ak yow nii. ah ci biir loolu une route goudronnée. ci yu bees yi. ah yooyu yëpp yu bees la. te tali tali bu bees tàq laa la wax. goudronnée ci lu matagul at. ci gouvernance am. Mm-hmm. am non non àggagul ñu ngi ci travaux yi gaa yaa ngi ci travaux yi actuellement nii. ndeysaan. lampadaire yi. avant muy falu maire avant muy indi na lampadaire à Pire. bi mu hmm. actuellement may wax ak yow hmm. le président de la République jox na ko deux cent lampadaires. <laughs> yëpp pour Pire. y wax ak na. Ah. pour Pire. gis nga gis nga sooy dugg si Pire dëkk bu wax Kër Galo. Hmm. ba sooy génn Pire. dëkk bu wax Paal. waaw lépp dañ koy électrifier. lampadaires xoolal lii. soo wàccee garage yu Pire. Uh-huh. la route principale qui mène vers euh, la maison du marabout ca biir dëkk ba. waaw. lépp dañ koy de lampadaire leer nañ. le quartier Sanc. waaw mu leer nañ le quartier Sanc. Uh-huh. nga xam ne c'est un gros quartier. waaw da ngay démarrer ci post de santé bi dem ba ca stade ba lépp dañ koy lampadaire. ndeysaan waay. actuellement nii ñu ngi techniciens yooyu ci kii bi di samp potey waaye ñun xaarim lii gis nga moom sunu maire am na bilan déjà non am am na déjà bilan te amagul un an loolu laay wax di ko ñaan maire non non on est on est à sept mois oui sept mois on est à sept mois xaarim oui sept mois nga réaliser loolu lépp nag président loolu yëpp président la république président de la République mais tamit ki nga xam ne si mooy maire bi tamit joué na ci rôle bu am solo parce que président wóolu na ko président gis na lim doon def balaa muy nekk maire donc xam na ne yenn yi bu ko tegee ci loxo maire bi ah vraiment foofu dana changé te xam naa koo xam ne sept mois nga def lii juróomi at bu ko fa toogee kon Pire nu muy mel nan la piir war a mel no fitiir bi <laughs> day mel ni Paris xam nga xam nga xam nga xam nga ñun chance bu nu am xarit mooy maire bu bëgg dëkkam non non mais ko da ko démontrer avant mu koy doon quoi loolu la war a nekk voilà avant moom rek laa gisee loolu non dafa bëgg dëkkam dafa bëgg ay mbokkam vraiment vraiment te loolu su ko amee dafay wax ni moom du maire boo xam ne dañ koy làmbatu mhm. maire la boo xam ni soo ko làmbee da nga koy daj mhm. chaque week-end chaque week-end il est à pipe moom nga def mais oui këram chaque ah. week il est à këram ci buntu kër bi lay toog nam daan def je di pëtëm xam nga pëtëm xaalis. xam naa xam naa xam naa. di pëtëm ak population bi. <laughs> xam naa moom sama gaañ la nee naa la man boo muyee Dakar rek këram laa reere ba moo présidente bu jabar ak yëpp moo ma yóbbu sax résidence bu may loo ci moo ma fa yóbbu sama waay la. xam naa yu bare dama xamoon. avant gis nga xaadim xaadim sa voilà. xaadim sa waay jooju. Mhm. c'est le meilleur maire actuellement du Sénégal. mais mais c'est ça. looloo tax gis nga tey boo gisee yow gis nga moor boo gisee tey Mor ak yow parce que moom am na woyafte boo mhm. xam ne man comprendre naa mhm. ko moom bu waxaloon ba liñ naan saabu du fóot boppam amul lu njariñ ni nga def nii mooy la gën man bu ma sañoon maire yi mhm. nekk ci Sénégal yëpp yi ñu fal dañuy def comme Ndoye Bane ni mu def et puis fii laa koy waxee tey maire yi may jàkkaar lool ku ci def bilan bi nga xam ne si départ bi nga xam ne Ndoye départ ne ko Khadim Gueye Mm. contacté ma ma def ak yow comme ni ma def ak noor mii yow wala sa ki yor sa communication mu ñëw wax ñu defar Sénégal mu gën a nice ko voilà man li tax ma départ ci Ndoye Bane parce que dama gis loolu xam ko ci moom mm. avant muy nekk maire donc amul lenn loo xam ndoy mën na koo def lu ma bett pas parce sama xarit la mais parce que ko jëf bu jëfoon sa waan ba fii laay taxaw clash ko xam na samay bagage man mayuma kenn dara dëgg la voilà mais la dañ koy wax il faut donner à César ce qui mm-hmm. appartient à César lañ xam voilà mm-hmm. lan moy sa dernier mot lan ngeen wara a en prospective bala muy gën a wax ma am na lu bees. waaw waaw taxaw wala. waaw waaw waaw lan mooy sa dernier mot daal ah? nii Xaadim. waaw. Euh, sama dernier mot mooy. waaw sant la d'abord. ci interview bi. amul daaj. gërëm aussi le président de la République. Mm-hmm. le président Macky mm-hmm. di wax waa Pire ni leen. Mm-hmm. lépp lu mu leen waxoon. Lep lom lè nou akon, ni dina kwa def, gom wi, mhm. ah, lè mhm. mhm. ni dina kwa def, mdak mege ki yonwi, wè di, dis mwok wè. E stat bi, ki wale sport, kwa di mpok la yi demare, lor ti perspektivi lè, teknisyen yonnen nou, E stat bi, def kwa def stat gazonen. Teknisyen yonnen nou pa kalkyle lep, ba khamnen kwa defere ak lep, sou nou gamon wap parek. ci la ñuy ñëw stade bi dañ dafa gazon la fay def. Mhm. équipe bi fi nekk parce que Mamadou Ndoye Bane Khadim le maire c'est lui le président de l'USPIR. Mhm. USPIR l'équipe de football Fagnon mom Moy, la championne régionale. Mhm. au niveau de Thiès. kon Pire mérité na un stade boo xam ne gazonné ci la ci foofu lañ jëm suñu pare. yéen a ngi ci liggéey bi yi ñëw noonu en terme en en terme de perspective. Mm-hmm. le centre culturel. Mm-hmm. terrain bu basket bu bees bi tabax na ko ba pare. Mm-hmm. terrain basket bi tabax na ko fi daral bi nekkoon. tabax na ko soo ñëwee Pire da nga koy gis nii. lépp installé lépp. li topp ci daral bi nag léegi centre culturel bu mag lañ fay def. nga xam ni daayira bu ayati muy bu tijaan muy bu murit muy bu laayeen ku fay def benn conférence ula nga ay jàng ci centre culturel boobu nga koy defee foofu ci perspective yooyu foofu la jëm après mhm. te lépp li ma lay wax nii nit ñi techniciens yi ministères yi ñëw nañ ko ba natt ko ba pare dañuy xaar gàmm gi pare gàmm gi en attendant mhm. en attendant pour la première fois xaadim gàmmu pire mhm. xel kom bâche moo koy def mhm. te loolu maire moo koy def personnellement c'est la première fois à Pire am na solo donc am na solo loolu ci perspective yooyu ci la nekk donc jeex na léegi daal gis nga Mor loolu daal Xaadim waaw waaw li ma la bëgg a wax mooy. loolu daal xadim yéen du ma leen bàyyi yéen moom du ma leen bàyyi parce que wax naa ko moom mooy maire bi ma gën a suivre ci Sénégal ndax dama gisoon action ni ma ko waxee di ko répété avant muy nekk maire moo tax moom ba mu nekkee ba mu mm. waxee ne day def day nekk candidat bu yàllaa ma tiim mm. dama nekkoon yow moom gañe nga balaa ngay dem élection lii laa ko waxoon de. dëgg la ndox muy dégg du weddi li mu ko wax. dëgg la voilà parce que action yi mu doon yëg. Sénégalais yëguñu ko woon mais man dama nu gis li mu doon def lépp. lépp daf ma dañ ci doon waxtaan. effort yu mu doon def même euh, studio dentaire booboo yu bagage yu mu doon indi yëpp. gis naa yi mu def ci koor gi. li muy defal euh, nitu diine yi. Euh, jàppale yi mu leen doon jàppale yooyu yëpp xam naa ko dama gisoon. ma ne ko nag jàkka yi jàkka yi foo dem. jàkka boo dem xadim basang ya waaw même taalibe yi korite gi moo moo xottil taalibe pire yëpp daay rek taalibe pire yëpp moo leen xottil ñawal leen solal leen damaa xamoon loolu lépp moo tax ma ne ko dama bëgg loolu boo gisee tey ma def ak yow ak yéen interview bi mooy dama bëgg maire yi nekk Sénégal yëpp au moins ñu ànd ak son excellence parce que président moom mm-hmm. ñëpp lay defal mais ñee ñoom même buñ defee mu jox leen duñ ko fësal mm-hmm. mais dama bëgg képp koo xam ah, ne mouvance bi comme ni ngeen def ñu am fit ñëw taxaw jàkkaarloo ah. ñu mel ne man mi ñu wax lan lañ def ci seen ah, dëkk boobu maire ba lan la fa liggéey voilà man loolu laa gëm mm-hmm. voilà donc maa ngi lay sant mooy dëgg mooy dëgg xalim waaw mi ngi mi ngi noonu ñu xam ne président kat vraiment mi ngi jàppale ñii taxawu na leen dëgg la ñu taxawoo yëpp. dëgg la ñu def lépp dakaar lañ ko def. Euh, te demul noonu. Mm-hmm. voilà donc courant bi. am mm-hmm. ngeen li ngeen bëggoon am ngeen ko ci. du ma leen bàyyi bu ma ñëwee Sénégal balaa yàgg incha allah dinaa ñëw pire. Mm-hmm. am na yoon ba dem ñu ñëw documenté ko wone ko fii ci Khadim Gueye TV donc maa ngi lay sant di la gërëm di la nuyu di la. merci Khadim remercier di monsieur le maire aussi. jërëjëf Khadim opportunité bi ngeen ñëw ci Khadim Gueye TV donc. Mor. merci Khady merci jërëjëf. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup ba ci temps jere jërë ngeen jëf. merci merci merci merci. ok merci. ok. alors mon. d'Africa. yeah man. du falu buur. 2035. émergence la ñu wax. fañ fañ fañ. jawa ca ca. jokkoo mag ñi di wax mi ngi jëf. jokkoo mag. ku lañ mun moo ko fuuf jokkoog Macky jam ñaaju du ay kaaf jokkoog bàyyi na xel askan wi jokkoog Macky jeunesse bi gën a yeewu jokkoog Macky émergence la ñu wax jokkoog Macky piment PIDC la jokkoog Macky bourse familiale yi la jokkoog Macky jàmm rek la ñu laaj jokkoog Macky Sénégal gën a naan jokkoog Macky yokk jokkoog Macky jàmm gën ay jokkoog Macky saay saay gën a réer jokkoog Macky li la nëmoon dana leer coow li coow li coow li coow a ah, munu ndaare mën pee président Macky rek bilaay ñëw ñoo la xam nañ sa njëriñ gis nañ say jëfiñ accéléré fast track gën a gaaw ñun liggéey rek Sénégal du lu ndaw jokkoog Macky ñi di wax mi jëf jokkoog Macky ku lañ mun moo ko fuuf jokkoog Macky jam ñaari du ay kaaf jokkoog Macky bàyyi na xel askan wi jokkoog Macky jeunesse bi gën a yeewu jokkoog Macky émergence la ñu wax jokkoog Macky piment PUDC la jokkoog Macky bourse familiale yi la jokkoog Macky tëral pataas kuñ ci teg sa avocat baaxul eh leen nañu dóor waar te waaxu eh opposition bi ay jàkkay kaboo leen ñu njëkk a julli ñaanal sa bopp yërëm naa leen topp benn boy from Fass Macky for life boobu nga xam si waxtaan nañ ko ak ki nga xam si moo yor communication wu mairie bu Pire euh, di nekk ci staffu Mamadou Ndoye Bane ci cabinet donc gis ngeen yooyu yëpp man du lu ma bett parce que dama ko xamoon avant du parce que sama waay la sama xarit la affaire yooyu man lu ma xaritoo xaritoo ak nit dëgg moom bu accès moom laay jiital voilà ku may mere mere ma ci dëgg waaw kay waaw lii def ko jëfoon moo tax man lii muy def lii ngeen dégg fii yépp du woon lu ma bett ci moom ndax nit ki boo nekkee ci sëb dëkk gëm ko bëgg ko boo demee ba laaj ko xam na ne am nga yéen def fa lu ëpp te def naa Ndoye Bane amagul un foofu sax gis ngeen lii ngeen fi dégg yëpp def naa bu fa amee juróomi at def naa pire dana soppeeku bu ma sañoon nag maire euh, yëpp maire yépp bañ a nekk ay nemmiku tuur ak yu kenn xamul ngeen toog def nii Ndoye Bane def ngeen liggéey mun a taxaw ne bilan bi lii ak lii ak lii comme ni ñu ko détaillé ah ñi ñu koy liggéeyal ña xam si ñoom ñoo leen votel ñoom ñoo leen fal muy ñu ne ci opposition bi ñu ne ci pouvoir bi parce que ñoom ñépp tey jii dem nañ ba fal leen mais état la ñuy liggéeyal voilà mais toog fi di ngan ngan lu man état bi duma defal dara te mënoo liggéey dara Sénégal te àndoog état parce que moo leen Macky Sall leen boole yilif yéen ñi ñëpp donc ni ma mën booy ndoy baan def xeexal li nga xam ne si mooy maire bañ ko jox dëkk ya ko wër village ak yëpp yéen maire yëpp nii ngeen war def courant bi mën a agsi parce que mu ngi dem fu nekk fu manqué ngeen signal ngeen liggéey ca bañ a xool na ci opposition ngeen nekk iñaane wala bëgg a taxaw fi di ngand ngand lu ci kanamu sénégalais yi ña ngeen ña leen leen defal dara amul benn njariñ wàcce leen seen bopp xam ne dañ leen a far pour ngeen liggéey liggéeyal Sénégalais yi leen fal donc maa ngi leen sant di leen gërëm di jox nag sama antenne bi sama micro bi bépp maire boo xam ne si liggéey nga loo xam ne war nga mën a taxaw fii bàkkoo ko ña la faloon ñu kontaan ci yow wool Khadim géey mu woola comme nii nekkal ci opposition bi nekkal ci pouvoir bi man amul changement lay taxal Sénégal moo ma ñor looloo tax ñoom ci loolu lay wax vous devez travailler maintenant nekatu len fi de campagne rien campagne tek élection en 2024 troisième mandat dana am ak temps il faut travailler le Sénégal a besoin de hein, des travailleurs dañ a fal accès gouvernement accès ci pour que mu comme nga si ci lay suba ci lay def leen ko ñëw ñu jox leen ngeen wax ak sénégalais yi ñu leen faloon ñu xam ne yéen ñi kat vraiment leen fan jar na ko waaye fan la ba noppi dégg ngay wëndeelu ci Sénégal fu ne yaa nga fa fu naa nga dem ba mu des ca mairie ba nga war a liggéeyee war a liggéeyal ñu la faloon yooyu na fi jógee amul solo voilà donc Khadim Gueye TV la tudd boo ci bindul woon abonné ci chaîne bi nga activé cloche bi Yen yi nga xam ne sa abonné ngeen te activé leen cloche bi moo tax vidéo yi ngeen koy doog da ngeen di activé cloche bu ndaw boobu ba ngeen gis virgule yi xam vidéo buñ ko dugalee ngeen mun ko gis voilà bu video vidéo bi neex na la baram boobu ñu la wan mu jëm ci kaw like na ko bës xamal ñu loolu ñu gën a ko neggeen fii la leeral gi ñëw dana amaat suite tey électrification bi la dinaa ñëw ak ci agriculture bi ak affaire man nee naa la ay Dakar Arena ay terre beeg ay <laughs> stade yeeg yooyu yooyu dafa yomb man yii ca biir àll ba yooyu laa dem leen loqatel ñëw leen tagal yu ngand yi moom bàyyi naa ak sama gars yi nga xam ne ñoo bees ci wane ay réalisation yu Macky Sall donc ñun 2017 laa wax ba tey ña ngi ca di ko dóor fa ñuy loqatee ñoom sax xamuñu ko woon mais nag. c'est juste ñuy ñëw di leen balancer yi nga xam mooy yu bees yi di ñaan nag Ousmane Sonko ginnaaw neen bu mag yi Sall yéegee <laughs> sama doom bàjjan bi Ousmane Sonko léegi sama doom bàjjan la quoi moom Ousmane Tunkara ñoom moom ay doom bàjjan laa def sincèrement parler quoi vraiment dañ dem ba dañ ma sympathique sax à la fin voilà dama koy wax ne newoon na bu mag yi yéegee ci <laughs> terre bi bu demee del santul Sonko donc léegi dañuy dind ooba rek sonk mais nag nit Ousmane Sonko li ma gën a metti mooy demul assemblée parce que waroon naa ko déglu foofu bis bu mag i sàll yéegee ci BRT bi dem ba delsi nan lay sant donc dañuy dindi kaab kaaba ñu dindi ko son son kese lay tudd Ousmane maa ngi lay nuyu yàlla sa fan gudd ndax nga mën a wuy ji ay sax ok gars yi peace and love fii la jàmm ji nekk fii la dëgg gi nekk mën nañ kaf mën nañu ree mais du tee aussi dañ leen di wax lee nga xam si mooy réalité amuñu pour sosal nit pour fenal lépp lu ma leen wax ci Sonko ku mën a doon dama lay tegal lu may wax ci Macky Sall preuve laa ciy teg du ma toog fi di tagg Macky Sall rek gratuitement sans ma tegal leen lenn loo xam moo ko def wala ay nit yoo xam ne mën nañ leen tegal loo xam moo ko def donc jàmm ci yéen di leen sant di gërëm di leen jox rendez-vous ci suite vidéo bi ak yeneen réalisation ok ñëw ci agriculture bi ngeen xam lan lañ ci son def ban liggéey la ci def ak ñoom ko chargé lan lañ cey donc j'aime ci sawaay nag mom nee naa la ay montage vidéo yi xëy na fan yi ma ñamal leen ci parce que ñu bari ñaam mais gën ñu montal vidéo ah, Ousmane Sonko affaire yooyu naa leen tegal sawaay mom, lu mu wax tey bu subaa wax ba donc habitué nañ ko ci moom dinaa leen ci mosal fan yi incha allah mais en attendant di wara li Macky Sall liggéey lii moom mooy jariñ Sénégalais yi quoi jëf dafa gën wax waxi kese amul benn jariñ léegatu kese naxul di béy jàmm ci yow jàmm ci man jàmm ci Sénégal yépp ak Sénégalais fu mën a ci aduna na seen jàmm yàgg. tey xam nga ni jam ñaajo affaire amagu fa niveau d'infrastructure zéro niveau d'équipement zéro pratiquement dara amu fa. soo jëlee zone waaw non soo rombee di nga gis quelques euh, bâtiments quelques bâtiments quelques bâtiments quelques bâtiments quelques bâtiments quelques bâtiments quelques bâtiments quelques bâtiments, quelques bâtiments. Oh my. Moi, le mensonge pathologique pat, tu fen tu yi ci dafa bari li gëna dangeré dangereux nit ñi dañuy fen ba far gëm ba far gëm seeni fen <laughs> c'est moi le mensonge pathologique nit day dem niveau niveau problème Il est modeste, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est efficace. Et c'est peut-être cela le plus important.